di leen ci suñu tubaab Cheikh Modou Mountakha mi nga mooy jëriñ sëñ bi ci Touba yàlla sëñ bi ñun ñu moom ndax liggéey bi ngeen taxaw sëñ Tuubaa murid yëpp la war yoon yëpp la war tim ñeen féeti fi bokk yi féeti fi yoon yëpp te mooy li suñ Tuubaa gën bëgg ci àdduna te mooy barab bii nga xam ne moom kaw suuf moo fi gën a doon ngeen nekk ci waru yorom ko yor ko yoroo ko bi def yëpp lii moom xanaa day rek noo xam ne kenn xamul ko waxee waaye wax dëgg yàlla yéen kenn tiwaleen dara yéen yéen a ku dara war ko ci waaye dara wër la kenn ndax fi ngeen nekk fi ngeen rek kon suñ bi ñu leen sant baax gërëm tey wax mbokk yi nga xam ne moom seq liggéey bi rek suñu affaire ñoom waaw mu xadama xelu fi million yi tàppale ko bi nga xam ne moom wax nañ ko jàppale liggéey bi suñu tuwaa bi muy dëkk bi ci assainissement bi nga xam ne yoon yi waaye nag yëf yi moom ma seetaan ma ñeetaan rek la eh, ma seetaan ma ñeetaan waaw ma ñeetaan a kudus waaw doo ko def mukk ci waaye li suñu tuwaa bëgg yéen ci te mooy mooy mooy mooy jàpp liggéey bi nekkal suñu liggéey bi rek kon ñu ne ñaan baax den sant dina gërëm waaw tey ñaan rek eh, dërëm yi ñu toll rek yàlla ko yàlla yokk seen i fan yokk seen i wërsëg yokk seen xéewal yokk seen i liggéey bi moom seen liggéey bi yàlla na ko rek yàlla ñu dugal yàlla dugal ci boobu te mooy mooy liggéey suñu wax moom moom kaw restu suñu jot am mu saxi daal daa jóg mu saxi ko sax ndax li nga nekkee rek dañ sëkk waaw rek am nañ ci maa ngi sant rek waaw loolu suñu bëggoon rek la ca nekk kon nag rek mu ngi ma ci war a xuma ko su ma daal damaa jaaxal fii waaw rek waaye waaw jéegée ñi kon kon kon nag mënuñu euh, gis ko yow addu sëpp ci ngeen ko ñu ngeen yëg ñoom ñaar bu ñu demee ba ñu lekkee suñu doxalin bu dee ba ci seen seen seen seen seen bitee seen guddi yëpp joxam sëñ Tuubaa bu ñu jógee ba jàll lii def ci xam da nga xam ne maa liggéey sëñ Tuubaa jomb kenn euh, ndax sëñ bi daa mel ak gaal la koo xam ne kon daa wut ak ko di gaal loo am def ci liggéey boo àggee taxaw lu sëñ bi boo boo boo ubbee ko defee rek kon yëf yaa ngi moom sëñ bi woote na ko ñii wuy si nañu ko si gi jot waaye li sëñ Tuubaa moom ñu bëgg dana ko am kon ñu ñaan rek yàlla na yàlla taxawu yàlla na yàlla sàmm yàlla yàlla suturaal yàlla yàlla nga suñu taalibe bi ñëpp rek suñu jëf yàlla bu dara yàlla bu yàlla bu dara yàqu rek waaw fa ëpp daal dafa yàlla waaw waaw sant yàlla jiitu ñu ngi euh, dikk tey ci sëñ Xabibu ñu doon joxe suñu siyaare ci liggéey bi ak li koy xeeb lépp nga xam ni liggéey bi liggéey taalibe yëpp taalibe jàpp ne kenn jiitu wu ci kon ñu ngi ciy suñu yéene rek ko wan ne bu fekkoon ne dañuy jaay ay ay doomu aadama di ko def ci liggéey bu jumaa ji kon noonu la ñuy jaay def ci liggéey bu dëkk bi kon noonu la ñuy jaay gannaaw nag dañu waroon jaay def ci liggéey bu dëkk bi te jaay ñu waju ñu waju waju jaay nga xam ñoo toog rek coobara suñu bopp di def loolu ak sant yàlla la te xam ne bu def nañu seet rek ñoo xam ne ali dëkk bi dañ loo xam ne ñoo war a defar dëkk bi ñu leen jaay defar ko ñu leen njëkk a jaay kon loolu kon lii lu lu xeeb la du dara sax moo tax sax jurutoon jurutoon sax wax waaw jurutoon wax dañ ko mën a raxal ci biir yëf yi rek jurutoon sax ñu yëkkati suñu kàddu kon ñu jégalu sax ci kàddu yi ñu yëkkati di ko tuub salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh noo ngi dool sant tey dollee siyaare tey ñaan sëñ Muntaxa yàgg fi lool te ànd ak wér ñaan liggéey bi ñu liggéeyal sëñ Tuuba yàlla may ko ci ndam tam ànd koog nun taalib bi yëpp waa jumaa jii di Muxaddamatul Xidma nag ak ñu ànd ak ñoom ñëpp ak ñàng ñu bokk ñoom pas-pas ñëpp ñu bokk moom ñoom yéene yëpp ñu ngi feeñal seenu liggéey te xeeb ko lool te di ñaan sunu boroom dolli ñépp kàttan te dolli leen kàttan ba fu ñu bëgg a ànd ak fu ñu bëgg ànd ak fu ñu bëgg a àgg ak seen jëf ñu àgg te dara bañ naan a dog sëñ bi mi nga xam ne moom lañ ko teg ci loxo bi tam jiite liggéey bi sans may ko ndam te yàggal ko fi lool te gërëm gërëmoom liggéeyam waaw ak mboolem waa kër Sëñ Tuubaa yi taxawaayam rafet na yàlla na yàgg yal na am ndam ci lii muy sakku lii ñu ko teg ci loxoom yàlla na ci am ndam ci barke Sëñ moom ñuy yàlla dañ ko ànd ak moom saa yër ak bari